asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan xaas TV gars yi maa di nuyu di leen ziar tey moom actualité fu mu amee ma daw ñëw macha <laughs> allah sëñ bi suuf bi nee yow nit naka lay waxee ak soxnaam téléphone yow ragal naa la nit naka lay waxee soxnaak soxnaam téléphone nga jël ko dugal benn waaye moo woo sàkk daa ah waaye sëñ mi di nga def noonu la de jaw lakkal na la ma ko gis nga te bu jaw bu doon nit a bu ma nee madame day coupé loolu mais nekk jaw la dugal waaye amul benn problème olof olof nee na ah. ah ah ah, ah mais mais xam nga xam nga olof nee na ah. ku ñu fay sa bor nga mer la nga baaxul xaas yaa xamtiwul pour maag yow rek Eva ngi fi yaa ngi fi bismillahi ay ci amul problème non non c'est gars jaxase rek eh, eh, day yii wuy ma fu mu nekk nii xoolal wuy ma gis nga Sonko lu wax sànq ah, nee na Macky Sall dañ ko may jàmm ah. Sonko moo wax loolu kon nag jàmm ah, nañ ci dialogue rek <laughs> Sonko macha allah seetaan nga discours Ousmane Sonko daa mel ni tension yi baissé na jàmm ak salaam dellusiwaat na si dëkk bi noo jàngatee di discours Ousmane Sonko. bon ginnaaw bi ñu nuyoo di ziar. di profito. di baalu ak ñëpp ci weeru koor bi. di baal ak ñëpp. di ñaan yàlla réew mii di Sénégal yàlla def fi jàmm. di ñaan yàlla yit yàlla dolli ñu sutura. ah te yàlla defal ñu taw féex. di la wax rek nag jaw xam nga dama doon la wax fii naan lu dul jàmm jàmm ko gën. gis nga àdduna. bu niir riir nit di riir di uti toolu fitna ngay riir di uti toolu jàmm moom bu àggee du nelaw te yow boo àggee boo tëddee nelaw ndax fitna du yem ci boppu boroom te deuxièmement loo gis ci àdduna dafay am fin jaw lekk sax daa am fin nelaw am fin tey loo gëmmintu gëmmintu di nga nelaw ba nelaw yee yeewu yee la ci kaw lal boo bëggee nelaw it doo nelaw boobu la nga doon nelaw jeex na loo gis ci àdduna dafa am fin ndox mi ngay naan sax dafa am fin ginnaaw ay jàmm te jàmm dafay gàccal rek ñi dugg ci ndogalu yàlla ba téye ko seen loxo foogoon ni ñoo ko yor loolu gàcce googu la leen yàlla teg mooy ñiy wax ni bu dul man diw du génn yàlla war na leen ni maa fi ne kon loolu jàll na deuxièmement déglu naa ko euh, ba mu jeex waaye xam nga ñaar dafa am toujours pour nit ñi di ci bàyyi xel gis nga nit bu ko yàlla toroxalul mënut torox boo ko jéemee doo ko def soo ko wax na leen ko boppam fi ma nekkoon maa ngi fa tranquille maa ngi nangam maa ngi nangam yor sama velo de entraîner kon kooku wan na la ni mu ngi ci jàmm loolu dafay firndeel ni yàlla rekk a fi nekk parce que jubluwaay ça dépend gis nga jaw mënoo liggéey lu baax mukk am safaan mënul nekk foo amee safaan rek faqastalu ci yoon yàkkamti nga ba xoolatoo yoon ba ngay jaar lan la tali boo amul oto noo la neex dawalal waaye boo amee oto di nga gis oto ci sa kanam nga freiné waaye boo foosee mbëkk te boo mbëkkee mën nga gaañu mën nga gaañ loolu mooy àdduna yàlla daf la may bët pour nga xool may la xel pour nga xalaat ñun nit nag des fois côté boobu daf ñuy daf ñuy daf ñuy suñu bëgg-bëgg ak it sunu sunu suñu ñàkk ngoor des fois mu dugal ñu ci loo xam ne maara day taali Sonko loolu la leen rawee bien sûr jaw gis nga boo doon takk nit nga tiim nit di takk di takk boroom xol bu rafet da ngay dem ba naan waaw man <laughs> boroom xoloo da ngay dagg muy takk muy dagg rek xam waral lool parce que li mu yéene ñëpp jàmm nga yéene ko safaan moo tax li nga ko yéene mënu koo dal mais boo ko leen fas mu jàpp day fekk moom mu yéene war a fas baro yow far nga fas ko jàpp ko mooy lu olof naan yéene néeg la boroo ma cay fanaan dégg nga kon jubluwaay bi dafa am solo jaw yàllaa fi ne garab yi ci àll bi rek mën nañ ko xam te doy na misaal garab dana sax ci àll ba jug di la keeral te nit roose wu ko kon yàllaa fi ne léegi garab boobu yàlla saxal sa biir metti nga dem jël ko xànc ko def ko gas def ko ci butéel naan ko biir bu wér kon yàlla fi ne kon ku wéral jaw jaarale ko fan garab que mënul tëb direct rek jàmbal la ndox mi nga naan déedéet mais jox na xel mu xam ne jaw mën naa sukkandiku ci garab gee ci xam-xam xam ne bu ko kiiwee naan mu jaadi jàll noonu la jëlee ndoxam def ci secret boppam mag ñi ni la boo sojoon ba sonn wala nga bëgg sa xel ubbeeku del def chaque fajar nga dem jàkkaarloo géej wala ngay doxant birisu birisu géej gi di la dugg lu gën loolu amul lu dàq faj amul waaye nag secret bi du géej ga de parce que li baax lépp jug guddi fajar googu lay delsi moo tax géej fajar géej danaan teg doo gis vague daanaka parce que ponkal yi génnoon ñooy duggaat tey jaw buy dugg këram ne salaamaaleykum ñëpp nañu waaleykum salaam Eva jug taxaw tànk ndox jox ko parce que loolu c'est normal mu ngi taataagal jaww léegi am na ñuy taataagal loolu am naa benn waay mu nga lagrose noonu la noonu la mel moom daanaka daanaka boo waxee mu ne waxi guddi ak waxi bëccëg xam nga koo xam ni mag moo xam ni day wax la waxi guddi la ak waxi géy tëg géy xam nga loolu dafa doy waar ñu ngi nuyu yaay faal ak sama goro ba Adama euh, kéemaana daal waaye jaw ak ak ak géejawaay ñu ngi nuyu waa géejawaay macha allah euh, dafay firndeel ni yàlla mayam dafa jéggi dayoo euh, da ngay gis gàncax gàncax sax bii ñëw sax ci sën bii ñëw sax ci xur bii sax ci yoon bii sax ci kaw garab dégg nga wax bi nga gis guy ñëw samp taxaw ñu ni ah waa léegi lan moo waral jaw war a daaj nit romb garab yëpp dem jox ko guy parce que lam ko dénk mu nga ca guy ga doone ko jaww gisu ko mais jubluwaayam guy ku ne xam ne ni dëkkuwaay jinne la guy daqaar maa di tali boo déggee mag ñi naan la daqaar boo ci daanoo dootoo wér parce que jinne ju bon ci dëkk am na ñoo xam ne ci taatu garabu daanu ci garabu Dakar moo yàq seen àdduna waaw la leen ba ñu daanu ñoom gis nañ ko te mënuñu koo nettali te wax naa la fii ni la jinne tey bu la dofloo doo ko nettali ilaa yow mi diin moo waral tey bu jëlee sa xelu xale mu wére di boo jàkkaarloo moom di ko laaj mënu laa tontu parce que li muy gis buggul mu nettali la ko moo tax ku jommi boo ko tiimoo lu la jommal mënul wax parce que day téye làmmiñam parce que moment boobu mu ngi ko jigee nee naa la ki xelam wéré di gis nga la muy waxal mu ngi jàkkaarloo moom di ko gis mu ngi koy joxañ mu koy joxañ te yow gisuloo ko mu ngi wax mu ngi tontu mooy jinne ñi nga xam ne moo yóbbu xelam léegi nag nga gis tey zaaro benn Lamine Baro yi mun nañoo jël mbir def ko ci res dugal ci turu nit dem sànnil ko jësit léegi kooku di lekk ba ci ak jësit bi ni bërët mu sànni kudd gi jug bu jësit bi dalee mu dal buy naanaat mu ni bërët mu jugaat yow nooy woowee loolu xam nga yow léegi ponkal nga ci sëriñ ah, nooy woowee loolu yow noo koy woowee déedéet loolu nopp jaw toogal damay dem bàyyi leen ma nangam parce que jaw xabtalun xabtal jaw xabtalun affaire yére réer te temps yi ponkal nga woon. parce que noob ah. soxla woo xabtal la ngay noob mooy li ngay xëcc. noob mooy mooy onze boo sànni ci géej mu jàpp jën ah. ngay loolu mooy noob que yow la nga soxla jàpp nga ko mooy xol ba nga soxla ci nit pour mu bëgg kii kon noob nga ko pour boole leen. dégg wax bi xabtal léegi fas tey jaw taxaw na war a dem songulee léegi xaaral ma fas jaw ba jaw boo ko bëmaxee mu daanu. léegi nag ñii dañuy tibb tànk bu ñu tibbee tànk jëmmi tànk bee taxaw léegi jëmmi si yi la lañuy jàpp boo gisee ñu lay tere sa yére bu réeree moytul parce que yére boo ko xasee sol simmi ko teg ko mais nit bu la ci fasee dootoo jóg surtout bu ci sa ñàkk laalee dafay neex a jàpp boo gisee mag ñi di tere nga fanaanal dàll ci biti lu mel noonu aussi moo tax parce que dàll tey buñ la ci nawtalee mara day taali am na lu ñu ciy dagg as tuut rek parce que yaa ko moom ba tey il faut nga bañ a li xëse dugg ci sa yaram ak li duggul sa yaram mënul bokk c'est impossible parce que li xëse dugg sa yaram dugg na ci sa yaram kon jël na lenn partie ci sa yaram déedéet lu ne mën na ci xew léegi dàll boobu tey nit mën na cee jël da ngay gis tey garab yu bari nga dem fekk fa dàll bu ñu daaj laaj ma borom nu muy def loolu mooy doot sànq naaj bu tàngul du jug am na ñoo xam bu ñu tëddee ci la sànq jant bi génnul du jug parce que dañ koo dootu day fudd rek dar sa guddi mu feebar bu naaj bi tàngee mu wér parce que dañ koo dott ci biir kër ga mu nekk pour yàq liggéeyam loolu mooy dott dott nag ñu ngi koy def ci dàll wala yëre loolu mooy dott léegi naawtal mooy par exemple diw mi kat bu mu génn fii am na ñu koy def ci ndox am na ñu koy takkal bi tax ci laaf ba am ñu koy takkal tànk ba parce que jubluwaay yi dafa bari mu ngi mel ni korte ku nekk ka ko sànni moo xam bët ba ca jëm te ku ci nekk bokkul ak numéro cee koot pël ba yëfa soose ba yëfa ma joolaa ba yëfa ma bu dee borom xam-xam da ñëw mu ni la mm-hmm. demal ca pël nangam wala demal Guinée ñu dindi wala nga ñëw mun la demal bërëb sàngam ñu dindi ko parce que kort xeet ba ko sànni rek ko mën a génne mais mun nga am kaaraange ba du la dal parce que boo nee kaaraange mooy li ngay jeex doo ko gis boo nee kaaraange mooy li ngay nit te doo ko jàpp boo nee kaaraange mooy li nga xam ne bu tëddee di nelaw nga jéggi ko te doo ko laal te pourtant yaa ko tiim mais lan moo gëlëmal sa bët sa sa sa sa bët ba mënuloo koo gis mais lan moo téye sa xel ba nga tiim tur tiim nit ki war a dugal turam fàtte turam am ñaat nit ngay liggéey ba ci ak jox turam fukki yoon nga koy fàtte wala tey par exemple am na nit ñoo xam ne sax mënoo leen listixaar gis leen bu ànd ak sarax parce que non seulement waaye loolu kaay wax la xam nga fan la ba mu nekkee liir boo déggee mag ñi naan sama doom ji boo tooyuma ko sa sagari kese wax la sëru rabal bañ ko daan bootee am na sirru bu ci nekk bien sûr bien sûr moo tax mu mat a fonk parce que mooy gàllaaju xale bi mu ngi mel ni soxna soo am jébbal ko ci say ba dañ ne la loolu mu kii noonu maara day saali mais bu bu sa jëkkër bu la merloo bu la defee li sax boo ci ñaanee loolu yàlla da koy daal di def parce que dafa am yoo xam ni matul di xeeb matul di xeeb te jaw wax naa ko fi waxati ko jaw gis nga dëddale yi ci réew mi xam nga bari na lool jaw salaamaaleykum maaleykum salaam yéen a ngi waxtaan nit dem na ci nit mu dugal turam ñaari dëddale lii moo am de bàyyil xel dara du ko dindi man bindal laa lay wax <laughs> ñaar moo am ci dëddale ah. benn bi da ngay dugal turu kii dugal turu kii wàqi doomu taal bu tàng jër def ko ci biir xam nga luy waral lool xol ba di tàng rek bu ko gisee xol ba tàng bu ko déggee xol ba tàng te dootul xajoog moom ndax da gis ñoo xam ne sax ci biir déedéet même kilim bu tàkkee dañuy ñàkk fekk lañ leen def la wa ilaa nga bind xaatim bi lakk bii ba mu doon sunguf nga lakk bii ba mu doon sungu nga jublu bi ëf diw jubluwaat ni ëf turu diw ñoom ñaar duñu bokk fanaan bu fekkoon moment boobu ñu toog di lekk sax dañuy kajjante kenn dootu ci bëgg a xool moroom mi loolu mooy dëddale léegi mag ñi loolu lañ doon beñ ba bu ñu mësaan takk jabar dañuy bi jël turu soxna sa ak turu waaja def lañuy def ut butéel def ko ci biir gas ca digg ëtt ba suul ko léegi nag nga gis ko bon ni dooleet waaye jaw mu ngi liggéey rek jaw affaire am neex na xaaral léegi nag wërsëgu jaw c'est simple dangay dugal rek juutal ko nii jaw fii xam nga ne bu amee ndox est que ndox ba dina taxaw du ñu bari nii lañ def seen wërsëg moo tax luñ téye duñ taxaw léegi bu dee umu lu ñuy topp lay doon rek mu ngi mel ni man mi lay rëbb nga topp yoon di dox su ma la jàppee téye naa la waaw loolu mooy loolu mooy umu biddéew ba la ñuy topp ba ni ko niib mhm. bu ñu nee niib bi mu taxaw bu seetul rek nit ki dèjà umu na parce que biddéew bi mooy wërsëg wërsëg fan la da ngay jug dem doxi wërsëg da lay tiim boo tëddee yaa ngi ci suuf mais tëddal nelaw <laughs> defe naa boo yeewoo xañ na budul téléphone beeg leneen wërsëg boo jugul laal bi doo ko am de da ngay jug dem liggéeyi léegi dox boobu ngay dox mooy ànd ak biddéew bi biddéew boobu ànd ak yow di dox mooy sa wërsëg léegi buñ ko téyee yaa ngi dox mais tiimatu la loolooy nit ki dafa umu umu ak tëju bokkul parce que tëju cat dana ko def rab dana ko def mais umu biddéew la mhm. parce que bu dee rab c'est simple man war naa jox jaw xaalis dafay dem ci xaas dugg ci dugg ko pour mu bañ a joxe jaw mi xaalis ah moo tax am na ñoo xam ni loo leen dig doo ko def parce que rab bi ñu àndal non seulement dafay fiir xeetu fiiraange boo xam ni soxlawul tey parce que da jiitu ci lépp déposé nga visa mu dem yàq diw mu ngi la war a jox xaalis da ngay xëy doo ko woo doo ko jot dafay gis sa appel di la ciy poto moom sax du xam la la lay ci poto wala diw dafa soof ah diw mooy wooteeti xoolal ba pare mu ni i waaw pourtant maa ko waxoon parce que xamatul lan la boo demoon tey liggéeyi fii suba patron bi bëgg la dangay ñëw xëy nuyu ko du la fay fekk rab bi dugg na ko ba yàgg xoolam est-ce que yaa ngi may dégg léegi bu dee cat non seulement lim lay defee lenn la mooy da dul bëgg li ngay def cat da dot ba yaram bi di diis gan boo waree jug liggéey doo ko àttan parce que bu dee làmmeñ la day jàpp yaram bi bu dee bët la day feebarloo bu dee làmmiñ la yaram bi doo ko àttan ndax diis boo waree xëy liggéey da ngay onk rek parce que place ba la ba ñun nga dem fa cadde la waa jiitu moo tax nag Sénégal lii priorité lañ deful périorité xam nga liy priorité ci jëm ñu nit mooy bâtiment wax naa la ni lu mu taxaw taxaw fondement ba ci suufa ko téye mooy nit da ngay préparé wu teyit di ñàkk sa bopp di ñàkk sa bopp da ngay gis koo xam ni gis nga we sànq yaa ngi koy daggee gémmiñ doo yor lu taxaw te it mën na indi gàtt fan nga gis koo xam ne nii lay jàpp wee yi di daggee gémmiñ baaxul watu sànni sa karaw gënul nga suul ko sotti ci ndox def ci doomu taal suul dara du ko laal parce bëri na lu lay xool di la topp te xamoo lan la lay toppee Sénégal gi ngay gis koo xam ne seen maam daa réer mu tëdd di nelaw am na benn waay boo xam ne Italie la jógee ñëw fii gis nga dàllam bi mu tëddee gént ñu kuppati ko mu yemal fa ay ay am ñëw fa mu xëy gis dàll bi dañ ko kuppati ca la léppam yàqu léppam ca la yàqu te pourtant moo yërëm mbokk yi nee na ban leen ñëw leen fi ma nekkee am na liggéey jour ba ñëwee la àddunaam yàqu ba moom ñëw na Sénégal nii may waxee ak yow te pourtant dàll ba ba nga xëyee mu kuppatiku boo doon nit a liggéey weer nga sa sa baax xëy fekk ñu weer <laughs> nga war a xam ne yaa quelque chose xam ñaata nit lañ tëj seen biir mënu ñoo am doom ci yëri jiit leel bi nga xam ne moom la jiital wala nit jël def def ci loolu léegi nag li gën a ñàkk fayda moom ma metti mooy takk xala xala te wax naa la ni takk xala fii li koy dindi jaw yomb na da dem ut ganaaru sekk tiir nga jël ganaar gi jël paan jël ndox sotti ci ganaar bi ba mu tooy xib ba mu tooy ba ganaar bi tooy xib nga sànni ndox moom boo koy jël di ko sangoo takk xale bi di dee lii mooy dindi takk xale jël ganaaru sékitiir bi tiimale ko paan bi nga jël ndox nga sotti ko ci sotti ko ci sotti ko ci ba mu tooy xëpp nga sànni ganaar ba bu koy sangoo takk xale bi du jóg parce que fan lañ def takk xale bi saraxam sékitiir la ci frigo lañ ko def moo tax boo takkee séet defal ibbi frigo ba boo fekkee kudd génneel kudd lu muy def ci frigo paaka lu muy def ci frigo kon loo fa fekk génneel waaye jaw xel mi baaxut day ibbi fekk fa kudd waaye ko eh, ku ku ku kudd kudd gi te war boo religieux lan la fa kudd ngay def léegi deuxièmement nga dem ci sa soxna pot de fleur yi dee leen ko xool dama nga def pot de fleur boo xam nit koo xam ne bu demee tëdd bu fa ayewul de bu fay tëdd fa fanaan fekk dott baa ngi ci pot de fleur ba buy teg ngegenaay bi di départ parce que ñawaale lañ téere bi ci ngegenaay bi góor da daan ñëw njort bëri na ñoo xam ne bu ñuy teg seen lex ci ngegenaay di nelaw fekk la leen nelaw la mu ngi teg mu ngi ci biir da ñëw ni ko nii waaye gaawalul ba naan la waaye tey ayuma fi xool 10 heures ngay yeewu coow la commencé fekk yow lan la nelawloo sax xamuloo mooy li olof naan li yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole nit da ñaw njort jaw nit da ngay ñaw njort deuxièmement maa ngi nuy benn kilifa bëgguma sax jaar ci turam dafa wax jaw dafa def sa sarax boobu ñu loo wax ñu waxoon ci wàllu cat bi mbiram bu bloqué woon ay at yàlla débloqué ko ñun ñun loolu rek lañ ci jublu mooy saraxu cat bi ah, saabu xam nga xam nga ñun loolu rek lañ ci jublu joxe woon nañ fii it euh, jaww paquetu suukar bi ak paquetu biscuit benn ko jigéen it wax ma ci wax bu daw yaram te loolu rek ñu ci ëppal importance wallahi yàlla xam na ko parce que sarax sarax torche la foo ko génnee rek bës nga lumière bi kenn mënu ci dara waaye léegi nag li ma ni la sarax dafa am yoo xam ne universel la boo ko bu la defarul du la gaañ am yoo xam ne nag du la defarte da lay gaañ mooy sarax bi rax pour nit ñi di ci bàyyi xel kon jaw wax naa la ni lu mel ni sondeel nit buy tukki di ko génne sarax baaxul sondeel boo ko saraxee alaaji busu fii la koy gas fii la koy teg taal ko te fa lay jeexee kon nooy génne dëkk bi saraxu sondeel du tukki baaxul nit boo tëjoo tey da tëju butéel bi dugal nañ ci parfum tëj nañ ko léegi boo bëggee génne parfum bi nii ngay def def ni moo tax saraxu ubbeeku nit ñi fonk ci dugub bi ci gën ñun la mburu bi ci gën ñu ni la mburu léegi nag différence bi mooy kii war a def ñett kii war a def juróom-ñaar kii war a def ñeent kii war a def juróom-ñett léegi muusal boo defee bii doo nekkee da ngay nekk di tàndatu bu beneen kii ba defal juróom-ñett rek dina jàpp benn par force mais jaww muusul boo defee juróom-ñaar bii ñaan xool ci sa benn soxla mu të defal juróom-ñett bi xool te maa la wax diw ko boo ko diwee dagg ko mu taxawee jëm ñaari tànk ñaari loxo mu nga xool ubbeeku dara gënu ko gaaw ci mburu parce que dafa jàpp ñeenti rawxaan yi nga xam ni moo accompagner ni te xamoo ban la ci boo ko ci def rek da koy doxal marche parce que dugub wax naa la fii sax na ci suuf dugub ngelaw ñorool na ko dëbb nañ ko safara togg na ko jàpp na ñeenti rawxaan yëpp kon sarax universel dugub la boobu jaw maa la ni man man wallahi soxla boo bëgg def ko nga am ci yéene nga xool waaye nag def ko altine ak alxamis xam nga saraxu talaata pour noonu la ak xeex saraxu àllarba dafa tàng saraxu ajjuma leer la moo tax boobu yàlla ko moom rek mag ñi daan génne ajjuma boo daan dem jumaa luy am yàlla jox la parce que boobu la ngay yéene yàlla doo koy defal ndax li ci soxal yàlla la ko gën a xam moo tax soxlawul nga ciy ñaan jubluwaay déedéet parce que moment ba ngay dëbb sarax ba rek am nga loo yëg sa xool yàlla la gën a xam li nga yëg sa xool waaye bokkut ak sarax bi am dafay xeex alaaj busa bu war ñëw ci man ma bañ mu ñëw boobu su ma ko génnee alaaj contre alaaj busa la kon sarax différent yi foofu la féete sarax bu laal dret bàyyil jaw sarax bu xonk bàyyil waxoon naa la fii ci gerte ni la ku koy génne sarax doo jug ci coow jug ci coow mais ba ma ko waxee ñaata retour nga am ñu ni ba ñu génnee gerte la géej am jàmm ci seen kër wala lañ leen génne kër ga gerte lu koy ñoral tàngoor munoo koo génne am jàmm c'est impossible maa la ko wax kay saraxu gerte boo koo génnee tey nga dee tey man su ma na xeex laaj bu sa ba bokk ak moom fenn wallahi wal quran ma bëgg mu jóge fa mais gerte laa koy génne te dama koy toj rek bopp bu ne bu ma ci tojee la ma cay wax bu may pare bu ma koy génne sarax muy génne foofu te lu ko fiy génne feebar doon wala du doon cooba de benn bopp bi ngay toj rek de boo bëggee wax la secret bi ah, <laughs> benn bopp rek ngay toj <laughs> ah ma bàyyi ah si ma wax la koo bëgg génne génne fa mu war a nekk ak fu mu war a doon dalay lay toll ci we bopp bi ngay toj rek tudd ci turu nga bëgg mu dem te livre rek lay doon du doon kilo de livre gerte ngay toj bopp bi xam nga livre matul day génn livre matul de kilo taxaw na ñaar taxaw ñetti taxaw waaye boo ne ñetti kilo genn wàll livre wala livre am na lu des matal nga ak toog léegi toog boobu lu ko tax a jóg moo tax sarax bi la gën a néew moo la gën a danger am na sarax foo xam ni li ngay rayee gëléem rey bëy rey nag bëy moo ko mën a saafara la nga bëgg sotti vite fait bu dee ci wàllu jinne léegi lan moo tax jinne bi bàyyi gëléem parce que gëléem bu dul saam ci lu yiw du la wuyu bu dul lu yiw du la wuyu jinne maa la wax li jinne jubluwaayam ñeent fukki saam ak nangam juróom fukki nangam juróom fukk ak nangam loolu téeméer ak benn loolu yiw la booy wut rek mais tey dama koy def ngir safaan wallahi du la wuyu parce que gëléem dafa sell waaw léegi nag passé puus nga nag in puus xar andi bëy bëy ni la li bëgg dama koy def parce que jinne yàpp deretu bëy ni mu ko soxlaa maara day taali booy rey rek daw na ñëw taxaw nga du ko soxla bii laa bëgg maara day taali <laughs> voilà voilà léegi moo tax sarax garaaw léegi nag liy yéeme mooy lan moo tax des fois ma ne déedéet utal ma bëy buy soox kon xanaa am na lu ma soxla ci tànk alaaj bu sëy bëy bu soxlaa soxla léegi su ma su ma jëlee bëy bi def ca la ma cee def takkal ko ko mara day taali est xam nga ni wallaahi am na ñoo xam ni wallaahi yàlla xam na ko billaahi lazi seen accident ci bëy lañ ko def moo gën a gaaw mais fiir lan la amul ku nit guddi mënu laa fiir te amul deret c'est impossible te amul deret te takkalul deret la mu la fiir mënul nekk moo tax boo doon tukki sa fit di tëf tëfi ñu ne la toogal bul tukki suba parce que yaa ngi war a génn sa fit bi toogul tëf tëf mais am na lu mu lay signalé yaa ngi war a tukki huit heures nga biddanti réveil ba lépp a ngi sonné nga biddanti mais yow rawaan baa ngi la bëgg a dimbali àndal ak sa xel tëdd nga xoolal li tax yàpp garaw ñu ne la boo géntee yàpp bu tooy wëril xam ne feebar di feebar bu mettee ngi lay dikka lan moo tax parce que yàpp bu tooy tey nitu guddi mën na koo teg fii di xool yàpp bi di la ko sol di xool yàpp bi di la ko sol te sexalu la ko parce que bët ba la léegi même bët boobu lay defee safaan boo gisee ñoo xam da nga naan damaa dajik nit ki ba ma raayee rek laa yëgatu yëgatuma dara sama yaram wala ba ma jàkkaarlu ma sama karaw bopp yi dafa taxaw mais y a quelque boo xam ne la ko yëngale ngi ci biir te romb nga junni nit yënguwuñu nga romb kenn rek mu yëngu loo dof dof war nga xam ne mbir la nit foog nga yeewu àdduna dafay laaj yeewu boo yeewuwul jaw zéro la parce que lii lay signalé mais dara tax mu lay signalé mais tëbul tëb rek di la signalé yaa ngi yaa ngi dem uti këyit nga gént wala yaa ngi war a dem Europe wala foo mën a de yaa xam nga tëdd solu ba rafet ci gént bi di xàqataay dem mais wan na leen ni fa nga jëm jafe-jafe kese la yaa ngi gént ñu lay dàq ba nga dugg ci pax mais wan na leen ni dugal dugg nga ci jafe-jafe yu metti te ci biir lëndëm këris nga nekk yaa ngi tëdd gént ñu la yóbbu ci ndox mais sarab yóbbu na la tuxal na foofu boo deful attention feebar rek wuy jee ci des wuy ji parce que sarab la yóbbu da nga ci ñoo xam dañuy tëdd bëgg di gént ñu te aj leen fu kawe kawe ñu naan démb man damaa jeg-jeg seen sama bopp fu kawe ñi naan ci ndox ñi naan ci suuf parce que seen rab yi ñoo leen di yóbbu dafa am ñoom ay nitu ndox lañu heure bu ñu tëddee nañ leen yóbbu lim nekk nitu ndox tax bu duggoon ci duus di sangu mën ngaa taxaw fii ay minutes yi minutes yi minutes di yàqamte mu génn pour nga mën a dem sangu te du génn parce que ndox mi moo koy dundal parce que li ci jëm biir yaramam ndox la. gént dinaaw ñu ngi lay yóbbu ñaari mbir la bu fekkee da ngay wérd mbir la xam nga gént dafa bari façon ñii dañ naan la boo ko waxee dañ naan ndax da ngay wérd wala daam looy def wala daam looy wax pour ñu mën la ci daal dimbali loolu mooy gént gént nag alaaji Bousso mu ngi taxaw ci leer ak lëndëm ñaari bunt la leer ak lëndëm am ak ñàkk ubbeeku ak tëju ci ñaar yooyu la gént taxaw leneen lu la ci waay wax rek def lay nax mooy say ñaari bët di sa ñaari nopp bu nit waxee fii nga dégg bu nit waxee fii nga dégg moo tax doomu aadama daraam du hasard lu ko signalé rek war naa xam ne yaa quelque chose mu taxaw nag am ci seetlu ak jàngat pour xam lan la exact am na ñoo xam ne avant ñu takk jabar lañ leen xamal duñu am doom te ñu ngi sëy yaa ngi ni sëyee koo gën di nàppal am na luñ la woon kon dafay baax nit di bàyyi xel dafay baax nit bu yeewoo <laughs> mu xam fi muy teg tànkam dafay baaxit it nga yindi aada yére it bul def rek boo fanaanal yére bu li gën a danger fanaanal yére timis xëy sol timis xëy sol baaxul baaxul baaxul mag ñi yére fu timis jotee balaa timis jot ñu dugal ko bàyyi it dugg ci néeg bu lëndëm rek dugg rek noonu tëdd rek ni ngam taaloo dara mag ñi fu timis jotee ñu ne xuyatal néeg bi parce que am na loo dëkkal néeg bi lan la te gisuloo ko mais boo xuyatee xam na ni yéen a ngi bàyyante xel may na la jàmm nga may ko jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulah